Eh, dafa am sama benn mbokk ndar anecdote la sax parce euh, nangu nañ ko ci histoire sainte anecdote liñ ci nanguwul mooy nga bind ci roman kooku nanguwuñu ko am na kilifa bu ci bindoon roman bu yàggu am benn mbokkam bu ma ci touché ni kontaan na parce que ku difficile la woon euh, mais léegi mi ngi commencé di nangu mbiri diine yi parce que gis nga roman bi mu def indi na ci histoire wu euh, chrétien yi indi histoire wu juif yi indi histoire wu dal di ciy bëgg a kontaan xat bi ma seetee téere bi ba mu jeex ma ne ko daal ci ni ma ko gisee boppam la ci gën a sédd diine ci ni ma ko gisee man ne ko ñoom gis nga seen culture baaxul parce que dina àgg ak ñoom ci bu ñuy jox yàlla dëggam sax mel ni dañ ko koy sarax dañ koy def bu ñuy tudd un prophète dal di koy wàcce pour wane ni ñu ngi nangu dëggam mais dañ ko ko sarax waaw dafa am ay vieille culture yu mel noonu ñooy jur grande puissance yi ngay dégg parce que ñoom dootuñu liggéey ci cadre vertu dañuy liggéey ci cadre tendance grande puissance yépp nag moo tax yàlla wax yonent bi ni ko maa ngi am maa ngi am benn système de blocage euh, moom laa leen di bloqué mi ngi tudd istidraj sanastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun yonent bi nee na min xaytu laa yaalamuun a gi moo ko tiital parce que am na ñuy ñëwi lu ne dinañ ko def dinañu def avion def gaal def bomb def lu ne mais ci cadre duñ ko def ci cadre vertu yi mukk parce que boobu du seen wàll boobu du seen wàll bu ko defee culture yooyu dafay jur doom yu nga xam ni bu ñu nee dañuy jox yàlla dëgg sax dafay mel ni dañ ko ko sarax te loolu loolu système de blocage rekk a baax ci ñoom te mooy nit kuy tàccu boppam nga bàyyi ko muy tàccu boppam di dellu gannaaw ba ni sërx sa sanastadrijuhum min haythu la yaalamun yi ngay gis yépp loolu la du leneen يمحق الله الربا ويربى الصدقات gis nga bokk na ci yi leen di gaañ mooy yi ñuy tabaxi seen dund dañ ko dul teg ci vertu yi te sama turandoo daf daan wax ni nee mag ñi ragaluñu nattu parce que dafa yokk seen cër nee na maxq la ñu ragal cheikh nee na mag ñi ragaluñu nattu ndax dafa yokk seen cër mais maxq la ragal mooy ñëw ci registre bi di laaj sa tur fonk sa bopp ñu ni la nekkuloo ci ñoom boobu la ñu ragal te dafay am euh, sama benn mbokk ndar dafa anecdote bu ñu wax parce que dafa ñuy dossier ah, malaka bi bëgg euh, dossier bi mënu ko lu ko matu ko boo koy fëyete di ma rey waaw mu ni ko xam nga lan la bàyyi ma ma wax ak buur won ko ni ko moom rekk fi nekk keneen nekk waaw wax yàlla loo xam ni yàlla mësu ko dégg mu ni malaaka bi classé dossier bi te yóbbul ma ko aljanna waaw mu ànd ak malaaka bi ñu dem aljanna Eh, bi ñu agsee ci bunt bi mu ni ko ndax am nga mën nga ma maye naana ma def ataay mu ni ko luy naana mu ni ko plante la bu ñuy def ci yi ñuy naan nangam nangam ah mu ni ko kooku ambar saxari la ni ko dinaa la ci indil am na ci pépinière bi ñu daldi waxtaan nag dugg daal di nekk xat ay copain mu ni ko yow xanaa magala yar mu ni ko ah nun nun ñëpp maganu yar mu que li nga wax tey loolu mësuma ko dégg ñu waxtaan noonu mu ni ko yow ku baax la dinaa fexe ba indi benn capsule nu dugg ci mu won la univers yi ci des mu ne ko mukk <laughs> mu ne ko xas naa dugg àjjana bàyyi ma fi ni ko man li ma daj transporteur laa woon ma ñëw ñu may ma fanweeri château château bu nekk mën na jënd ñeent fukki château de Versailles sama piscine yéeg yépp nga naan mën nu dugg fi génn fi ni ko bàyyi ma rek ma récupéré moo gën ni ko yow kaay ma wax la yow malaaka nga yaa gën jege buur bi mais kaay ma wax la dara ci moom na ko wattu ni ko gis nga këf kii nga wax léegi danga koy indi nu dugg ci rekk te mu yëg ni demulu ci yoon bu nu demee ba ci benn montagne rek mu paanal ko su ko defee nu nekk fa nu dinu mbamb comme ni noo dootu nu jar dara dara dara dara te noo ko defal suñu bopp ñu ko nag bàyyi ma ma noppalu moo gën ndax man transporteur la woon dégg manque naa essence puus naa oto mu ni ko luy oto mu ni ko espèce u cercueil ambulant rek la <laughs> mu ni ko daal yéen daal am na ku leen jàngal ay eh, mu ni ko Muhammad moo nu jàngal waaw mu ni ko Muhammad moo nu jàngal pour wax la nii euh, anecdote yu mel noonu aayul mais bind téere ni danga ciy sédd yonent bi wala danga ciy sedd yàlla mel ni yow yaay séddale li yëfi parce que intellectuel nga parce que académicien nga parce que jàng nga lu ne am nga am nga lu ne ci njàng am nga ko ci ñoom ci façon boobu lañuy ñuy binde toujours bu ñuy bind ci diine waaw nanu sarax yàlla tuuti rekk jox ko ci dëggam gi façon boobu la te kooku catastrophe la waaw doxul nag da nga leen di yërëm waaw li ñuy wax koy yërëm muy bind lu téere gémmiñ lool loolu rekk la du leneen ma wax ko ko nag ma ni ko moom boppam la gën a sédd boppam la gën a sédd boromam ma ni ko boo jàngee ni mu bindee rekk da koy xam ba mujj ñu mujj d'accord ci loolu te yu bari yu ñuy bind léegi ci boobu façon lañ koy bind moo tax dafay am temps ñu war di dellu ci yonent bi am temps ñu war di dellu ci alquran bu ko defee yooyu ñaar ñoo lay woon yii ñuy bind léegi ni mu doyale loolu dafay